Bye. Thank you. confident sama rakk Salimata Gueye ah morceau bii di ñëw de bu ñu continuer baalu ma la ko courant dafa rek baalu ma la ko dama bëgg nag nga ñaanal ëpp di jàmm ak salaam ak wér gu yaram bu yàgg fi loolu bu yàgg ànd seen ànd ba ñëw dara suñu diggante ci barke Yonent bi. yow foofu noonu. my brother Adam happy birthday to you. lu yàgg lu nekk nag dëgg la déjà damay wax ne xale bii yàlla na yàlla yokk ay laaf xam nga lu tax li mu def yombul ndax naqar ak bànneex ñoo bokk ku nekk xam na ni seen naqar la jóge mais nag kullu nafsin saaxatul mawt bakkan bu mu ngi dund dina nga seen kenn mais nag li lépp yéen a tax ma koy def ku bëgg Wally Seck sa loxo si kaw Wally mais Wally neex na leen wala Wally neexu man nag comme dem na invité anniversaire dama bëgg ngeen wax ni Wally mooy nekk seen baay kenn mënu si dara waaye kenn mënu si dara man dama wax dama kii yàlla daf ko may lu ma xam ni yéen a ngi koy filmé su ma day génn man ragaluma tiituma xam nga lu tax ni ma fi defee lu fi kenn deful dara noonu la téye musique bi war fi def lu fi kenn warul def dara kenn mënu si dara. loolu tax na nag maa boole. grand li may ñaanal du dundal mais seen groupe bi yàlla ci yàlla def jàmm loolu ëpp solo ndax chaîne buy marché la boo xam ni tey jii ñu ban ko ñu bëgg ko man dama doon dem campagne damay tëdd kenn rek laay déglu muy Wally Seck damay wax dëgg rek te yàlla tax kon nag my boy dundal yow nag yal na la yàlla defal jàmm te waale am na fu mu la teg xoolal dundal cent ans sax def nañ Fatick fii kon dund leen. merci à tous les fans de Wally Seck. God bless you guys. merci beaucoup à tous merci.